Sénégal tey ay ndaw dañoo am lu leen métti rawatina ak jeunesse su Ziguinchor rawatina ak ay jigéen ku ne xam na jigéen góor dafa war a sargal jigéen ndax bu président ju jigéen ko jur ministre jigéen ko jur lu ne jigéen ko jur mais ay góor tey ñu tiim ay jigéen seen yaram dawul sax ñuy jël ay bant yu rëy wala ay fil ñu ko dóor suñu ginnaaw yaa ngi nii amul lu ñu defu tey suñu tànk yaa ngi nii di buule ay jakarta di ñu dóor di simbi seeni yére loolu fan lañ ko teg fan lañ teg loolu lan moo tax ñuy def loolu xanaa boo demee bay xeex nga dem fekk sa morom góor jàkkaarloog moom xeex ak moom mais boo tiimee kii muy jigéen nga war a doxaan nànk dem sa yoon mais ay ay bant lañ doon jël di ñu dóor ay bant ay course am nañ fi benn malade urgent léegi léegi dënn bi moo ubbeeku dañ ko yóbbu ba këram mu crise ñu indiwaat ko man sama tànk baa ngi nii yéen a koy gis jakarta lañ ma ci sànnil loolu fan lañ ko teg ñun loolu taxul ñu bàyyi Doudou Ka ñun dañu engagé wu si ginnaaw Doudou Ka bu ñu bàyyee Doudou Ka dañoo dee dee moo ñu tax xale ak Doudou Ka te gisuñu lan moo ñu tere bàyyi Doudou Ka ñun Doudou Ka la ñu gëm dañuy dem ba jeex bu ñu doon rey dañuy dem ci Doudou Ka taxul ñu bàyyi Doudou Ka pour lan jigéen yi ñuy toroxal di ñu simmi ndax Doudou Ka taxul ñu bàyyi Doudou Ka dañuy dem ci Doudou Ka ba dee ñun Doudou Ka la ñu engagé wu suñu kàtt Doudou Ka Doudou Ka moo tey bu ñu defee yéen Doudou Ka tax ñu koy def président ñun Doudou Ka la ñu gëm moo tax ñu topp si ginnaawam dañuy dem ba jeex gisuñu lan mooy tax xoolal bu ñu doon dee sax dañuy sori suñu néew ñu ànd a Doudou Ka vive Doudou Ka jeunesse jigéen so ñu ay jigéen dafa ëpp lii dañu dafa ëpp jigéen yàlla ko suturaal nooy tiimee jigéen di simmi ay yére pour lan